asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi na ngeen def ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara mbaa yéen a ci jàmm alhamdulilah di defaat na yaa ngi sa canal Galsen TV ngeen fi amee seen astuce yu am solo yi di la ñaan nag yow mi nga xam ni abonné goo nga bés bouton s'abonner bi soo bëggee bokk ci seen bi bëgg bépp vidéo bu ñu def nga jot ci yomb na bouton bu xonq bi nii bii moom ngay bës boo ko bësee mu gris léegi daal di nga bokk ci seen bi yomb na amul fay dara gratuitement la da ngay bës rek bokk ci li muy jariñ rek mooy bépp vidéo bu ñu nga mën ci jot léegi soo bëggee nag vidéo bu ñu def nga jot ci mu mu ci yow da ngay bës cloche bi nii mu génne la ñetti cloche nga bës cloche ba ci kaw mooy waral bépp vidéo bu ñëw rek mu sone ci sa téléphone en même temps su fekkee seetaan nga vidéo bi mu neex la nga bës fii nii j'aime bi soo jàppee ne tamit amoon na la solo wala am na tuuti loo ci jëriñoo nga jàpp ni am na sa yeneen collègue yoo xam ne si ñu ci réseaux sociaux yi te mën nañ cee jëriñu ah bu ko defee tamit nga bës fii nii pour nga partager leen ko pour ñoom it ñi mën cee jëriñu yow ni nga ci jariñoo kon dañu ñëw ci astuce tey bi directement bala moo gën a du balaa vidéo bi gudd astuce bi ñu ñëw nag astuce bu am solo la boo xam ni bu mat a bàyyi xel la euh, maanaam alerte la bàyyiloo nit ñi xel la xam nga euh, application bii nii bii bii bëri na ñu koy installé ci seen téléphone pour di enregistrer ay appel am na solo parce que euh, enregistrer ay appel bokk na ci euh, yoo xam ni man am na solo daal parce que su fekkee bëgg nga looy wax nit ki mu leer yow noonu rek nga mën a jël comme yi mu nga enregistré denc su ëllëgee lu xew rek nga mën a génnewaat sa enregistrement mais nag eh, dafa am benn sew-sew benn secret bu ci nekk boo xam ne si yow mi enregistré say appel nga xam si yaa ngi ak application bii nii nit mën na laa aba sa téléphone ni la alma sa téléphone ma envoyé ci ay photo parce que sama téléphone nii kati naa nga jox ko ko mu dugg ci biir application bi mu dugg fii nii bu duggee ci application bi yow application bi yaa ngi ko doyee rek pour enregistrer ay appel xamoo yan sew-sew ñoo ne ci biir moom mu àbb la ko dugg ci application bi eh, dikk fii dikk fële ci trois traits ya lay ca kaw bu fi dikkee bu dikkee ci trois traits yi day wàcc ba ci suuf ñëw fii ah, fii lay ñëw fii ñu ngi fii nii email automatique ji nii Gmail foofu la waaj yi dikkee su fi dikkee fekk mi ngi téye sa téléphone de bu dikkee fii lay dugg fii bu duggee fii nan lay def day <coughs> day bës ñaar yële bu ko bësee mu génneel ko yow sa téléphone bi nga ko àll numéro compte yi ci nekk mooy bii premier compte baa ngi nii deuxième compte baa ngi nii troisième compte baa ngi nii compte yi yëpp ñoo nekk ci sa téléphone léegi nag moom compte yi jëriñu ko dara compte yi nii jëriñu ko dara li koy jariñ mooy mu ñëw ci ajouter compte ji fii nii fii lay ñëw mu ajouter fi compte ci ajouter un compte ajouter un compte jii nii fi lay ñëw mu ajouté fi un compte su fi ajouté benn compte bu defee nii par exemple bu defee nii xaaral vérification des informations léegi bu defee nii su vérifié su Google vérifié moom ba mu créé compte ba pare su créé compte am léegi kon bon dañuy jàpp ni créé naa sama compte ba pare créé sama compte pare damay départ su ma départé fekk fa tableau bii léegi par exemple compte bi ma doon créé léegi mi ngi nii bu exemple rek compte bi ma doon créé léegi mi ngi nii créé naa ko ba pare mu ngi nii ma daal di euh, cliquer ci kaw compte bi mu sélectionné ko ma daal di ok su ma ok euh, daf may defal euh, ok léegi su ma ok ba sélectionné compte bi normalement dafay envoyé ci ci ci compte boobu noonu benn email bi wane ni euh, li mu doon vérifié normal na mais daal li tax a jóg vidéo bi dëgg-dëgg mooy yow soo amee application bi nii xamal ne place bi nii su la waaye abee sa téléphone dugal fii kontam euh, am numéro email am fii nii dugal fi compte Google am euh, am na nu mu koy def bépp vocal boo bu application bi enregistré application bi da ko koy envoyé automatiquement da ko koy envoyé automatiquement nga xam ne loolu noonu lu mat a bàyyi xel la yow mi nga xam ne yor nga application bi mu di la jariñ eh, xamaale ci lii nga xam ne si képp ku la abul sa téléphone wala même su la su la abul sa téléphone tamit boo yoree sa téléphone di ko chargé nga xam ni si sa téléphone dina faral di jóge say loxo saa bu jógee say loxo ba dikkaat jëlaatal nga dugg ci application nga vérifier ba xam nekkuñu di la espionné am déet parce que fii saa boo fekkee xamal ne am na lu xew waaye nag mën nañ la espionner ba pare doo fekk fii compte bi fa ngay fekk compte bi mooy ca ca paramètre bi soo bëggee xam ba xam yow mi ñi ngi déglu say appel say appel mi ngi enregistré wu di ah, ñu koy envoyé ci beneen numéro téléphone beneen email am téléphone bu koy jël par email da dangay ñëw fii nii ci paramètre bi boo dikkee paramètre boo ñëwee paramètres nga ñëw euh, compte utilisateur et conte boo ñëwee gis nga compte yi nga am pour Google yëpp bii mooy premier compte bi bii bi mooy premier compte bi génn naa lu bari pardon bi mooy premier compte bi bi mooy deuxième compte bi bi mooy troisième conte bi léegi man compte yi xam naa ne sama ay compte la am xam naa ne trois compte rek laa yor te xàmmee naa leen waaye su ma dikkoon gis fii nii ci suuf gii nii fii nii ci suuf fii ci diggante ñaari compte yi su ma dikkoon fekk fi beneen compte boo xam ne si xàmmeewuma ko damay xam ni kii ni mi ngi espionné samay maanaam mi ngi déglu samay appel bépp appel bu may am rek moom mi ngi koy déglu léegi eh, pour exemple rek ma jàpp ni compte bi la daal ma ñëw fekk fi compte bii nii te xàmmewuma compte bii nii soxna Marème 20 26 ji ma dikk fekk ko ci ci place yi compte yi te xàmmewuma ko ma xam ni daal man dugaluma ko ci am na keneen ku ko ci connecté damay ñëw sélectionné ko nii su ma ko sélectionné compte bi sélectionné wu daal may wax ni ma supprimer le compte su ma waxee supprimer le compte ma ñëw fii ma supprimer compte bi su ma ko supprimer nag léegi saye waa ji mënatut a déglu samay vocal mënatut a déglu samay kii bokk samay appel donc nii lañ koy supprimer quoi nga xam ne am na solo application bi donte am na solo mais am na ay risques ak ay dangers yu ci nekk yoo xam ne si yow mi koy utiliser nga xam ne si mënoo ko ñàkk euh, baax na nga xam ci lii quoi ba soo toogee ay 2 jours 3 jours nga dugg ci menu bi euh, wala nga dugg ci paramètre bi vérifier ba xam ndax amul benn waaye boo bàyyi sa téléphone mu am lu ci def di déglu say vocalam déet hmm, am ñaari sens euh, application bi ci boppam mën nañ ko utiliser pour koo xam ne si day. dafa bëgg contrôler ay xaleem ay xaleem dafa yor ay xale xale yi yor téléphone te mu bëgg appel bu xale yi jot mu contrôler ko ba xam ban façon appel la mun naa jëfandikoo application bi nii installé ko ci téléphone xale yi dugg ci biir application bi daal fay e, daal di fay e, activer compte am compte Google am bu ko defee appli bu ko defee appel bu xale yi mën a recevoir rek application bi dafa koy envoyé automatiquement par email su ko defee bu ci duggee rek na mën a déglu appel bi ba xam kan moo doon woo xale bii ni ak lan ak lan la ko doon wax waaye loolu moo ko tax a jóg mais espionné maanaam déglu appel yi jàmbur par hasard rek taxu koo jóg parce que loolu xam nga ne du yëfi nit euh, du yëfi ku gëm daal donc loolu noonu euh, jar na moytu bu baax a baax li ko tax a jóg daal mooy yow mi ko yow mi nga xam ne am nga application bi euh, te nga xam ne daf lay jariñ day enregistré say appel te loolu soxla nga ko trop nga xam ni am na benn danger bu ci nekk boo xam si nit mën la ko àbb def ci loolu noonu parce que ñëpp yemul ñëpp yemuñu waaye nga mën nga mën a nekk en garde ba nga xam ne si nga mën a protéger bopp ba nga xam ne toujours yaa ngi en garde ok loolu laa bëgg wax euh, kon ñi ngi yemale fi vidéo bi ba beneen yoon incha allah di la ñaan nag encore une fois yow mi abonné guñ nga bés bouton s'abonner bi bokk ci chaîne bi ba bépp vidéo bu ñu defaat nga jot ci ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci topp yi ngeen doon topp vidéo yi bu beneen vidéo incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.